mu ñaawal ko waaw kon nu Mbàkke bu lii bu suñu borom topp fexelee ah fukki fan yu mujj yi loolu sëñ bi daan def yooyu jéego nga nga mottali ko sant nañ ci bu baax waaw te maa sëñ bi maa ngi fàttaliku mu mujj yebal deqale ci mujjam waxtu wii la mu ne ma kaa ma yebale ci sëñ deqale ma màggal ga te jii la soo demee nga teewal ma waaw kon nag Mbàkke ñaan suñu bopp yàggal def bu baax da doon say xéewal lépp loo xamante ne rek sëriñ bi bàyyi na leen ko rek yooyu nga bëgg a yóbbu nga yóbbu ko ànd ko ñu ko rànd ñu sant bu baax njaboot gi ñu ngi gën di yeeslu di gën di dénkaan seen bopp say taalibe fi nekk ak say doom rek waaw ñu sant bu baax mbàkke ñu sant bu baax a baax sant nan la bu baax xool seet na lool waaw jërëjëf mbàkke jërëjëf mbàkke Mbacke jërëjëf Mbacke waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu euh, je me présente je m'appelle Fallou Mbacké Diaw je suis talibé de Serigne Cheikh Bintou Fall et aujourd'hui je suis très honoré euh, de présenter aujourd'hui la famille de Ndar Fall la famille de Serigne Modou Abdoulaye Fall donc le ramadan euh, revêt un caractère particulier pour nous Baye Fall c'est des moments de de de de réunion, c'est des moments de, de, de fraternité, c'est des moments de partage qui nous unit avec toute la communauté. Donc nous, Baïfal, notre mission sur Terre est de rendre grâce à Serigne Touba. Nous n'avons nous n'avons aucune ambition à part obtenir l'agrément de Serigne Touba. Nous ne cherchons rien d'autre. Nous ne cherchons ni fortune, nous ne cherchons ni gloire, ni pouvoir. Nous ne cherchons que l'agrément de Serigne Rien ne nous émeut, rien ne nous dérange. Servir Serigne Touba est notre mission sur terre. Donc euh, Serigne Cheikh Bintou Fall, aujourd'hui, qui dirige la famille de Serigne Modou Abdoulaye Fall, est un exemple pour aujourd'hui toute cette jeunesse, pour toute cette jeunesse. Parce qu'on euh, a tendance à confondre euh, Baye Fall et vagabondage. Et ce qui est très dangereux. Parce que c'est facile de Ou avoir des dreadlocks et se dire que je de dreadlocks. Et les 95% des gens qui ont des dreadlocks ne sont pas des Baïfal. Donc ça n'a rien à voir. Le baïfalisme est une philosophie, est de vivre, en suivant les préceptes de Cheikhul Khadim. Donc Serigne Maud Ablaye dans la khidma, qui est le travail sanctifié. Donc notre mission sur terre est de rendre grâce à Serigne Seigneur Maud Abdoulaye nous a éduqués, a fait de nous des mourites, mais des mourites plus qui sont des baïfals. Nous ne nous, nous, cantonnons pas juste à faire euh, les cinq prières, lire le Coran et tout ça. Nous allons plus loin, au-delà de ça. C'est-à-dire que nous faisons un travail communautaire, c'est-à-dire le partage. Et je pense qu'une communauté ne s'est pas bâtie juste dans la prière. Une communauté s'est bâtie dans euh, euh, dans, dans le travail. et aussi des règles de bonne conduite. Donc c'est le message que je lance à tous ces jeunes, c'est de revenir à la source même, à la base du baïfalisme. La, la base du baïfalisme, c'est la rectitude, c'est la droiture, c'est l'honnêteté, c'est le travail. Oui, ñàkk jëriñu, c'est ça. Donc on ne peut pas se dire baïfal et se mettre à traîner dans les rues, à, à, à quêter, tendre la main. Non, on doit travailler. on a travaillé à la sueur de notre front et, obtenir euh, de Serigne Touba et de Mame Cheikh Ibra Fall donc je peux juste dire jërëjëf sëñ Modou Ablaye jërëjëf sëñ Ablaye Fall jërëjëf Mame Cheikh Ibra Fall jërëjëf et mention spéciale à Serigne Cheikh Bintou Fall borom Ndar Fall jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatulah comme niñ ko waxee woon tey ñu ngi ñëw fii nga xam ne moo di Ndar Fall. di lenn ci eh, dëkk bi rawatina waaye di benn ëtt ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ñëw fekk fii ki nga xam ne moom moo di Serigne Cheikh bintu Fall nekk ki xam moo di xalifa Serigne Modou Ablaye jàmbaar ci ki nga xam moo kër maam Cheikh tey nag ñu ngi ñëw euh, fekk ki nga xam di ab euh, xalifa muy Serigne Cheikh Bintou sëñ bi ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu ngi lay ziar tey ci bis bi nga xam ne moom mooy ñetteelu kumte bi. waaw jërëjëf ñu ngi baax. sëñ maam Thierno yaag ñi àndal ñëpp waa ITV ak 24 TV leen di nuyu bu baax sant di ci weeru tedd bi ñu nekk muy weeru koor di siyaari Cheikh Amadou Mountakha Xaadim Rasul di ko ñaar suñu borom yàggal ko fi lool te wéral di siyaari njabootu Sëriñ Tuubaa gépp di siyaari si am nu Modou loolu loolu ay fan loolu xéewalam Eh, yàggal ko fi lool. siyaare njabootu maam Seydou Rahane Fall gépp wala wala bunt maam Seydou Rahane Fall a baax. tey ah. ne weeru koor eh, ak eh, yi waaw ah, weeru koor moom loo xam ne suñu borom moo moo ko digle <coughs> fekkoon na it moo ko digal julli ñi digal ko it ñi woon ñi jiitu woon xeet Muhammad salaa salaam kutuba siyaam amaa kutub xanaa la suñu xabla noonu ma ko waxee ci alxuraan waaye nag boo ne Baay Faal tudd weeru koor sa xel day dem ci ndogu muy muy ndigal li nga xam ne Sëñ Tuubaa da ko joxoon Seex Ibra ci weeru koor te it muy weer woo ne mooy saxru Ramadan la see um si la mooy weer woo xam suñu borom wàcc na ko muy weer yërmande di weeru barke di di weeru xéwal di weeru tawféex te it eh, doomu aadama yi jullit ñi nga xam ne dañoo topp dañoo topp li nga suñu digle di ci woor di wàccu ak ak santaane suñu borom yi loolu nag moo tax eh, maam Serigne Fall Sëñ Tuubaa woolu woon ko ca Njaareem 1916 la woon joxoon ko ndigal mu togg ay ndogu boobu it sëñ bi da ko wax ne mu ànd ak bokk na ci mag ñi àndaloon mu Cheikh Yaaram Mbay sëñ Yaaram Mbay bokkoon na ci mag ñi àndaloon maam Cheikh bi leen sëñ Tuubaa woowee ñu wuyu sëñ Tuubaa mu jógee ci këram gi nekk ci Médinatu Fall Médina mu fekk sëñ Tuubaa kër gu mag mu jox ko ndigal na ne ko daa bëgg am gan gu may séenu mu <coughs> muy weeru koor mu bëggoon na boo see ñu ñu ñu ñu ñu ma ko teral ba muy dellu damaa seetaan na ci boobu nag muy togg ci këram kooku mi di ko yóbbu yu jeex loolu nag mooy ndigal li nga xam ne moom lañu fi bàyyee eh, njabootu maam Serigne Fall ak buntu yëpp foofu dem lu mel ni nga fekk eh, muy di togg ay ndog di ko yóbbu ci kër Serigne Touba eh, yi sax xam nga law na ba bitim ndax am na sama rakk ju nekk Paris sëñ Cheikh Fall Khady Gueye moom togg ay ndogu moom it doomu sëñ Modou Abdoulaye Fall la di togg ànd di ko yóbbu ci kër sëñ Tuubaa yi nekk ci France kon nuyu ak ak tabarne ak di ko jox étudiants yi kon ndog yi maam Serigne Fall yi law law na ba fépp ci àdduna bi waaw boo gisee fi ne boo demee Dakar wala fi ne foofu maa dem ci réew mi gis xale yi di dajale def ay ket di dajale ay ndogu di ko jox <coughs> di ko jox di ko di ko jox euh, jaami suñu borom yi te te euh, joxe ñam suñu borom lu ñu ci wax dafa dafa dafa dafa dafa waaw euh, wax nañ ne benn tibb boo jox ab jullit bu euh, ab jullit bu xiif mi yaa ngi mel ni ko tabax junniy jàkk ka ka alfi jaame kon joxe lu baax la te euh, mooy li nga xam ne am na benn kii boo xam ne ci àddis xursi yi nekk ko ba àddis xursi yi benn xesa boo xam wax nañ ne kooku mboolem xeeti jaam yàlla yi da la ko doon def ba ba mu jàdd genn jàdd ba jàddee ak jàdd jëfandikoo lu mel ni sàngara suñu borom da koy tere muy muy yoo xam ne mooy ndey def yeneen yeneen xeet yoo xam ne da ko saa boole wax nañ ne mu jàdd ci marché bi nag jënd aw lekk mu jëndee mburu di lekk ba mu des bopp mburu bi mu mu mu mu gis benn ku yellaan mu sarax ko ci diggante ba mu delloo fa nekkoon suñ borom moom ko bu ko suñ borom moomee nag suñ borom di ko àtte ci jëf yi bi mu koy àtte mu indi mboolem ñeent fukki at yi nga xam ne doon na ko jaamu suñu borom te mos cee mooy yëpp yu ne yu baax na yëpp xebadaat yi benn benn benn jëfu euh, euh, bi rek wat wat jëf yooyu nga xam ne maanaam euh, ko teg ak mooy doomu aadama jëm rek ak njaalo gi mu def yëpp ak seegul léegi ñu jël dagg bopp mburu bu mu saraxoon teg ko mu wat mu wat. jëf jëfu ñaaw teew jooju ñu jëlaat yeneen jaay jëfu ñaaw teew bi tegaat ci bopp mbur bi wat leen nga xam ne bi bi bi wax ne bi mu jëlee bi mu jëlee bopp mbur bi ñu ko tegee balance bi mu rësee waa waa penc bi sax dañ ndax ndax am doole gu am doole nga xam ne bopp mburu bi xam ne moom moom la sarxe woon te yàlla tax rek la joxe woon te yàlla ko indi ak jéggal ba suñu borom jéggal ko waaw kon nag euh, joxe ñam lu am solo la ci lislaam waaw am na solo ci société bi ndax xam nga Sénégal day société day société boo xam ne ñëpp mënuñ seen bopp waaw même boo demoon foo ko ci àdduna bi it da ngay gis ñoo xam ne ñëpp ñëpp yàlla moom amul fenn foo xam ne ñëpp maa seen bopp waaw même boo demoon Amérique wala nga dem Arabie Saoudite wala France foofu maa dem da ngay gis ñoo xam ne day tàllal loxo di yalwaan wala ne ci mbedd yi kon nag lépp loo xam ne ndimbal la am nañ ko maa def loolu suñu borom moom sant taxawoon ala bir taxaw wala taxaw ala suma futbaa na ngeen dimbali seen biir ci lu baax am na defee tamit ñu dimbalante ci ab safaan ak ak ak ak lu bon kon nag lu baax li nga xamante ne ci lañ ci lañuy jàppalante mooy di togg ay ndox suñu kilifa suñu tubaa muy ndigal loo xam ne jóge tubaa loolu sëriñ bu ndox yi eggee ci moom it da koy tasaarawaat ci nga xam ne fépp foo euh, xam ne bii ñi ko yi xam ne aajowoo nañ ko dañuy ñëw ci kër suñu tubaa gi ñu leen ko fay jox ak sëriñ bi ñu ko jëlaat ko yóbbuwaat ci mboolem ëtt yi ak mboolem daari alxuraan yi ak ak ak ak ak ak ak njaboot suñu tubaab yi loolu mooy liggéey bi kon nag ñu ngi sant bu baax. suñu thème bi am na solo leeral bi rawatina ci joxe ñam ak uh, fi ngay jaar ak loolu lépp xam naa beneen bi mooy tey boo ñu doon defal melaw Baye Fall dëgg-dëgg lan mooy melaw Baye Fall. waaw melaw Baye Fall mooy mooy melaw maam Cheikh Ibrahima Fall rek maam Cheikh Ibrahima Fall nag am nañ chance ndax gis nañ porte leen te eh, nag gis nañ it ay doomam ñoo xam ne moo leen jur gis na it ay ay ay ay xam ne moo leen yar ñun ne boo ko bëggee xam ci ñeent yooyu ngay dellu maanaam ci jëmmam wala ci doomam wala ci kim yar waaw te gis nañ jëmmam porte leen gis nañ ni mel am am benn taas ah, jëmmam ñu xamoon ak moom dëkkoon ak moom xamoon ko wax na ne bis yëpp la daan sangu moom Cheikh Ibra ku set la woon bis yëpp la daan sangu. te wax nañ ne euh, parfum yi mu naan laal ci jamono booba yi gënoon seer si jamono booba loolu ah, wax nañ wax nañ ne wax nañ ne loolu bind nañ ko yéen seer nañ ko col euh, euh, gi yi mu daan colit yu ci jamono booba yi ñu daan jóge Mauritanie yi yu am bu daan sol mosul bàyyi boppam waaw bi mu nekkee ndar ay taaxi kaw la dëkkoon boo demee sax tey ji am kër goo xam ne mooy kër suñu Tuubaa këram la woon waaw bu mu nekkee njaareem ay baraag baraag américain yi la dëkkoon euh, fu mu mës a dëkkit ku fa ñëw li nga xam ne fii euh, ci fa jamono tolloon euh, amul woon benn dëkkuwaay boo xam ne féet na ko kaw waaye loolu lépp nag ak bi la ko woon rek ndax mu mos soxla dara lu am daal suñ toile ko la ko doon delloo ñaari bi boo gisee doom yi nga xam ne moo leen moo leen jur koo ci gis di nga xam di di nga xeeme ma bëgg a doon bëgg a doon moom. ndax yar na leen jàngal na leen eh, sëñ Ablaye Fall Ndar eh, Ndar la génn e-, école fils de chef ak ak biir e-, e-, école nekk Saint-Louis foofu génn ak diplôme ak eh, brevet sëñ Ali Fall Mbawar sëñ Assane Fall lañ génne sëñ Saliou sëñ Fallou Fall noonu ñoom ñëpp daf jàngal yar leen ci diine ay ay ay ay tarbiyaam magi taalibe yi nga xam ne koo gisit da xam ne kii kun yar la kun jàngal la waaye loo gis nag ci àdduna day am ñoo xam ne euh, day am la la toppaan nag lu maanoon nag faaw day am lu ne ci biir loo xam ne euh, ci ci euh, maanaam ci wet gi lay nekk waaw ci wet gi lay nekk xëy na na nga na nga ndax kër kër gu nekkit sa njaboot di nga di nga am sa njaboot ñoo xam ne sax na nga bëgg ñu mel ni ñu comportement bi maanaam du duñ mel noonu waaye Baye Fall daal boo ko doon tënk daal ci lu gën a gàtt gën a gaaw daal ak Baye Fall waxuma waxuma Cheikh Ibra Fall mooy mooy mooy mooy nit mooy mooy taalibe gi ak ak murid gi ak bàyyi ba woon tënk dañ tënk ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari pied rek mooy laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah salaa salaam ak xidma xidma bi nag mooy anfusihim amwaalihim sa alal ak ci sa sa doole waaw sa sa alal nga delloo alal ji nga liggéey moom leew la nga delloo ko ci yoonu yàlla doole jële yàlla jox nga nga liggéey suñu borom nga xam ne doole ji yàgg yàgg du sax ci yow ñaar yooyu daal mooy ak Baay Faal waaw te te jub jub jub ak jubal waaw bañ a tooñ koo tooñ nga jéggal ko ak maandu waaw loolu loolu lan la waaw. macha allah yaram comme ni nga ko waxee ci melo Baye Fall kon suñ diggee ci biir kàddu ñu xam ne kon Baye Fall li naan noobul kon Baye Fall mooy noobul ndax eh, ni nga ko waxee ci njabootu ki nga xam moo di maam Cheikh Ibrahima Fall génn ci école yu mag yi nga xam ne ñoom la ñuy tudd ca ca booba jamono moo tax ma ne kon Cheikh ay waa kër ay noobul lañ xam Euh, beneen bi ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy euh, xalif général di mu rawat na ki xam di Serigne Mountakha c'est digganteem ak mën naa ne du mën a sori ndax bi la ak Serigne. waaye bis taxawaay yu am solo yoo xam ne nii doo koy doon da koy kii ci yow. waaw waaw sëñ bi de moom de suñu sëriñ <laughs> de suñu sëriñ waaw di suñ di suñ lépp rek waaw ndax nit ko moom boo xasee ba jox ko sa bopp rek euh, mu mënatoo sa bopp dara ndax. yaa ngi ko déglu ci lépp tey muy koo xam ne dañ koy ñaan yàgg fi moom dafa nekk sëriñ bi dafa nekk euh, koo xam ne modèle la waaw euh, doon koo xam ne euh, référence la référence ci lépp moom sëñ Muntaxa bu dee ci xam-xam bi macha allah ndax alxu jaare la jàng alxuraan jaaree sëñ Mor Mbay si ba bind ko. te xoolu ko ba jébbal kaamil bi way juróom sëñ Basiiru jóge fi dem ci réew arab yi jàngi ba am ay diplôme doon sëkk ci sëñ Samba rek témoignage bi bi mu defoon ci moom wax ne euh, ñoom bu ñuy jàng ci ci réewi naar yi moo moo lu njëkk lu leen lu njëkk lu leen jox moom moo leen ko njëkk moo leen ko njëkk wattu waaw te doo ko xam ci moom waaw te fee tey jii ku ku toogal doo xalaat mukk ne sëñ bi génn na bitim réew jàngi ngir taalibe gi ak ak murite gi waaw muy muy saarix nag maanaam nga xam ne murit saarix ni sëñ Tuubaa bëgg moom noonu la mel waaw moom moom day day day day produit sëñ Tuubaa nga xam ne maanaam échantillon la nga xam ne mboolem lu nekkoon ci ñi fi jaaroon ci ci ci ci xolofaay sëriñ Tuubaa yi la ko tàmbale ci Cheikh Amadou Moustapha ba ci ba ba ci sëriñ Saalihu ba ci sëriñ sëriñ sëriñ Sidi kenn ku ci nekk rek boo boo ko doon xool da am loo gis ci sëriñ bi nga xam ne kenn ko am na lu nekkoon ci loo xam ne dafa day dafa day ci ci Seex Mudu Muntaxa nga xam ne moom moom synthèse la Sëriñ Muntaxa day xam ne dafa dajale lépp mooy que dajale lépp mooy ki ki mbir yëpp daje ci loxoom waaw nga xam ne kooku nag mooy borom jamono ki mbir yëpp daje ci loxoom nga xam ne day téye saa téye téye base bi matale lépp nag. kooku mooy moo tax moo tax bu ñu ñëwee ngay gis mu simb simb mu rëy mu université bi nga xam ne Sëñ Abdou Lahad Mbacke moo ko tàmbali woon mu ko naaloon bokk ci bindoom yàlla dogal mu sottee ci loxoom ñu ngi ñaan mu yàgg lool kon euh, ak yeneen na yeneen lu mel ne gis nga jumaa ju ma jee ca Ndakaaru mu masal ko jinaan euh, nga xam ne yëpp euh, dafa yokk lislaam ba nga xam ne mën na ko wooyee sax Euh, xalifatullahi fil ard waaw mënees na koo woowee ndax dafa nekk jullit ñëpp nekk nekk suñu borom te suñu borom it bi muy wax dafa wax ne mm, euh, yaa yaa Daawuda innaa ja'alnaaka xalifatan fil ard waaw kon segam nag nit la yàlla tànn def ko xalifaam ci kaw suuf euh, te Cheikh Ahmadou Mountakha xam nañ ne mate na loolu xalif xalifatullahi fil ard mate na ko waaw. Euh, kon nag sagam nit la yàlla yaay yaay sama courage yi kaw suuf euh, te sëriñ bi li muy def euh, di ko doxe ci lislaam di ko liggéeyal jullit ñi di ko liggéeyal adduna bi di ko liggéeyal doomu aadama yi boo doon wër adduna ba mu doo gis jëmm ju mel noonu waaw yoo xam ne mi ngi ko doxaloon kon nag ñu ngi ko ñaan yàgg fi loolu te wér waaw kon nag yónni yónni ay barkeelu moo tax ñu am ci bu sedd guy waaw di sant di ko ñaanal mu yàgg mu yàgg fi lool te wér waaw. ni nga ko waxee xañ na loolu day loo xam ne sax du doon loo xam ne sax di nga ko mën a wax ndax euh, lam yónnee ak kàddu yam ca teg am na sama ngërëm ndax loolu yaakaar naa ci nag buñ delluwaatee ci histoire période bi mu ko waxee ak fan yi mu ko waxee daanaka euh, lu lu lu ci biir semaine ñaar fukki fan koor gi la ci boole ko bu euh, bésu badar bi tam jombul ne ci boobu lañ koy fàttaliku. nga xam ne loolu geneen garaat la beneen garaat la boo xam bu ñëwaat la ndax kon nag faal ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool lool te waaye bëggoon nañoo ñëw ci baatu kumte waat lan mooy waral ndax dañoo gis ne chaque dix jours wala bu jotee yenn kër yi kenn ku nekk euh, sànq suñ kii moom moo koy leeral mu ne ma ku doon def ñaar da yokk yeneen ñaar wala yu da ngay ñett maanaam kumtewaat. waaw waaw ko bëggoon a defi. waaw loolu loolu xam nga kumte moom mooy waxtu bu ñu ne um nañ koor léegi nag. am nga koor gi ñett ñetti fukk la muy trente suur wala ñetti fukk yi rek ci cay doon benn mu dem trente suur benn mu nekk vingt-neuf suur ci biir loolu nag fukki fan njëkk yi dégg nga su moom séddalee bi njëggal la bi yërmande ak ak ak ak jot sawara ak nag sëñ suñu borom moom moom moom séddalee weer wi def ko ñett ñett yoo xam ne moom la ko def ñu ne nag ci kaw loolu nag maanaam bu amee bu weer teeyee loolu la ñu tuddee compte ku njëkk nga xam ne maanaam waaye amoon na koy indi nga xam ne sëriñ bi bu génnee ci poosam joxe bu joxe bu sëriñ bi joxe woon benn mbooloo mi day kenn ku ne da nga yokk ñaar wala nga yokk ñett jàppale ko sëriñ bi bu demaatee yeneen fukki fan ak benn mu fukki fan ak dugg fukki njëkk mu fukki fan ak benn ñu defaat noonu maanaam doon lebaat ndax génn nañ ci njëggal gi taab bi ñu taab ci yërmande gi ñu dugg ci yërmande gi mboolaa xéewal ngir bëgg bu ñu génnee ci yërmande yëpp tàbbaat ci euh, euh, beneen bi ñu dolliwaat ma nga xam ne mooy mooy mooy mooy fukk fan yi bi ak fukk fan yi benn ak ñaar fan yi ak benn waaw loolu day yokk liggéey bi rek nga xam ne day wan sëriñ bi ne ko lu weer yi gën a sore rek ñuy gën di ñu ci gën di am mbégte di ci gën di am am kontaante waaw xéewal yi gën xéewal yi di gën di yaatu waaw loolu mooy mooy mooy kii bi mooy mooy kumtewaat mooy mbirum kumte yokku jëf yi daal lañ ko tuddee waaw. am na solo am na solo beneen bi xam naa foofu la ñuy jeexale ci kàddu boobu sànq dafa am lu am solo kuñ àndal bi ñu ñëw ñu am lu ñu doon waxtaane ba mu ne eh, yoon bi lañ am li Cheikh Ibra am bu ko keneen bu ko tubaab yi amoon sax dañuy daw ba fatt ndax da ngay woote benn jour cent personne xëyal la ak ñaan la ñuy kii lan mooy secret euh, yoon Baye Fall. waaw li mooy mooy lii mooy jox sa bopp suñu boroom rek te eh, jël si jël jël si lépp delloo ko yàlla waaw jël sa lépp nga delloo ko yàlla ndax ki nga xam ne li muy jëf li muy jëf xoolu ci àdduna te pay suñu borom la ciy xaar kooku fu ñu ko woo ci liggéey yàlla rek da ci am sawar waaw loolu moo tax eh, waxtu waxamee dégg nañ digal sëñ bi ndax xam ne ne ci liggéeyal si moom la ñuy woo waxtu bu ñu ko déggee rek dañuy dañuy jóg jëm ci waaw secret bi moom loolu rek la mooy xam na ne yàlla moo ñuy fay yàlla la ñuy liggéeyal te it xam na ne sëriñ bi lañ ko jaaree waaw loolu loolu rek waaw. waaw jërëjëf. <laughs> macha allah jërëjëf Fall Yaram ñu ngi seen xam naa nag duñ jeexal ci rawatina ci waxuñ ci. tolluwaayu réew mi jamono ji ndax ndaw ñi nga xam ne ñoom la ñooy nekk mbedd mi tam dañoo amaat kër yu ñuy dellu siwaat amaat ay ay ay ay ay ay yóoruwaay ni ñu koy waxee ci waxtu wi faal jot na ñuy dégg ay kàddu yoo xam ne nii bu waxtu bu tollee fii ci rawatina ñenn ñi nga xam ne ñu ngi sañ wax ñi nga xam ne. waaw waaw moom lay moom xam nga mënuñ mënuñ moom ba xasee kilifa. Mm-hmm. da ngay bàyyi sa da ngay bàyyi sa bopp sa kilifa ak sa baat te ñu jox suñu muntaxaa suñu lépp bàyyi suñu lépp. waaye nag bu fekkoon daal sañ na ma wax dara daal di ko jëmee ci eh, ndaw ñi daal mooy ñu gën a fonkaat njàng mi gën a fonk ko ci amul ku ci nekk ci liggéey nga gën a fonk sa liggéey gën a respecté kilifa yi kenn ku nekk nga fonk sa wajur ku am sa kilifa nga fonk ko li sëñ bi daan wàccal saxiir naa ñu waxoon kab wàccal kab naa ñu saxiir ndaw ñi nañu weg weg mag ñi mag ñi nañ yërëm ndaw ñi loolu bu amee rek jàmm mooy am ci àdduna bi fépp na ci àdduna bépp laa ba mu jàmm fee am li des na nga xam ne mooy wàllu politique wàllu kii moom politique bi moom euh, nañu gën a yërëmante seen biir rek te xam ne ñoom ñëpp ku nekk la ngay xëcc ak la sa bopp it lenn la ngeen ngeen di xëccu waaw lenn la ñuy la ñuy xëcc te it ñoom ñëpp jàpp naa gën defar réew mi defar Sénégal ñoom ñëpp nag muy opposition bi di pouvoir bi ñoom ñëpp seen yéene mooy defar Sénégal Sénégal jëm kanam euh, kon nag ñoom gis naa ñoom war ñoom seen bopp war nañoo maa toog waxtaan waaw kay ñoom seen bëgg-bëgg yëpp muy opposition bi muy muy président Macky ak président Sonko euh, des am na yeneen ci des ah, ba ci PDS dégg nga PDS dégg nga dégg nga dégg nga dégg nga dégg nga moom lañ soxla mu defar ko kaas benn kaas daal bi lañ bëgg mu pour am daje toog waxtaan waaw waxtaan réew mi euh, ndax réew mi toll na foofu waaw tey nag ñu bàyyi kilifa yi teg pression nam naan na kilifa yi wax na xalif général yi yi kilifa yi leen war ñu ngi ci waaw leen war ñu ngi ci mënuñu mënuñoo teg jël benn personne ni ko teg xalif général yi wala kilifa yi ba ban wax te yàlla wax loolu leen ñoom ñoom am na am nañ koy déglu ñoom kenn kilifa yi am nañ koy déglu waaw ñoom seen ñoom ki ñuy déglu xam nañ ko waaw te ñoom lu war xam nañ kon nañ leen bàyyi nii nii nan nañ wax ak nañ def ndàngam su ko defee ne ñooy ëttu ëttu politique bi ñoom ñu jéem a seen biir jéem a daje waaw war nañoo maa daje ndax si réew mi doo nga leen ñor mooy fekkee fekkee réew fekkee réew mi doo nga leen ñor nag jàpp naa war nañoo maa daje waaw xam ne moo jiite réew mi ci le 3 avril bi muy def déclaration wax na lu mel noonu woote na nañ ñëw ñu ñu ñu ñu ñu dajaloo. waaw waaw léegi wax na ko léegi ñoo dégg nañ ko mais nga bindee lettre yoon na leen xam ne moom ndax nit boo koy xam ne moom la ñu woowee doo jékki-jékki nag woo naa maam Thierno wala woo naa ay lettre xam na ko yónnee ko seen seen seen convoqué leen ak ay carte d'invitation invité leen ci la muy def. mën na leen éviter ndogu weeru koor jeexagul mu su leen ndogu ab jullit xanaa boo ko weeru koor ndogu éviter ko teyit loolee teyit bu ñuy ànd ànd ba mu nekk lu sincère daal nga xam ne day day nekk ànd joyante ànd joyante tàggoo jëwante li si musaa nga ànd joyante tàggoo jëwante mu <laughs> bañ koo doon mu nekk ah, nekk ànd bu dëgg waaw ànd bu dëgg boo xam ne defar réew mi rek moo tax a jóg su ndax réew mi ñun ñëpp ko bokk waaw ñun ñëpp ko bokk te bu jàmm amul kenn du nelaw te fitna baaxut ak fitnatu naax mun naa la ma la xasaxa fitna day nelaw yàlla rëbb na ko yee waaw fitna baaxut kon nañ ñaan yàlla def jàmm ci réew mi yëpp waaw boo defee eh, yi ñu yëkkati yi nga xam ne yéen mboolu ñu yëkkati te xam naa taal fitna ñu teg ko ci suuf waaw mu lu mu tuut tuut ñu teg ko suuf te jéem a daje nag ñoom waxtaan seen biir bu waxtaanee eh, solution dana am. waaw lu mu maa doon boog waxtaanee rek ndax gis nga adduna bi même même guerre yi guerre mondiale yëpp ci waxtaan lañ ko mujj waxtaanee ko ma mais xeex rek léwu ko solution bi amul amul benn conflit boo xam ne ci adduna bi dafa dafa terminé ci xeex dañuy dem ba yàgg ñooy naan toog teg gànnaay wéer gànnaay yi waxtaan kon ñoom nañ waxtaan seen biir te xam ne réew mi daal ñoo ko bokk tey ndaw ñi ñu xettal leen ci nangoo jàng ak nangoo liggéey dégg nga ku ku ci am say sa sa militant nga wax leen ñu dem uti seeni i seen i carte électeur toog déglu la waaw loolu daal kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu moom defal lu jàmm yàlla ñu ko te na ngeen téye asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. kaddu yi am na solo rawatina soññee bi nga xam ne def na ko ci ndaw ñi euh, bu jamono tolloo fii dañuy bëgg kaddu yu mel nii nga xam ne moom mooy jógee ci sang si di mën a delluwaat ci ndaw ñi ndax jamono ji fi mu toll nii dafa yëngutu beneen bi ti mooy woote na wax na ne nañ ñaan jàmm ci réew mi woote toog waxtaane ko. dem na sax ba ne bu dee ci weeru koor gi ñu def am ndogu pour mën a dajale waxtaan li nga xam moo wëdd réew mi kon daal euh, lii mooy li ñu leen jël woon fii nga xam moo di kër Serigne Modou Ablaye Fall Ndar euh, ñëw nag fekk fi nga xam moo di Serigne seex Bintou Fall mu ànd ak ay rakkam ak ay taalubeem ñoom ñëpp. ànd ci liggéey bi nga xam ne mooy seen liggéey bi nga xam moom la leen seen maam bàyyee muy liggéey boo xam ne nii buñ jógee rek jàll ci leneen ndax ku dem résidence Xaadim Rasul gis ne am na liggéey am solo yoo xam ne ñoom ñoo ko fa salaat boo ko fa dugg rek sa xel lay daal dem ci ki nga xam ne moom moo di euh, famille bi nga xam moo di famille euh, sëñ Abdoulaye Fall Ndar kon euh, sëriñ bi faal ñu ngi lay sant baax la gërëm